ci talaata tey bii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l' sociale jot na résultat yii ma leen di bëgg a jox ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñetti fukki ak juróom-benn moom la ñuy wax contact moom la ñuy saytu di leen topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi mun nañu rekk wax leen ne ki nga xamante ne moom moo am tey doomu jàngoro yu fii ci Sédhiou dem na ba wàll ñaar fukk ak juróom loolu mooy wane ne wàllante mbas mii ñuy wax Covid 19 da ko gaaw lool am na benn boo xamante ne moom la wax cas. communautaire mooy bi nga xamante ne kenn xamul ku ko ko wàllu damay fàttaliwaat ne moom mooy tax mbas mi di law nu mu gën a gaawee ñu ngi ko gis fii ci dakaar ci bërëb bi ñu naan ñaari tali ci malade yi nga xamante ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi fukk gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi ci fi ñuy wax hôpital Fann ak hôpital principal ñeneen ñi nga xamante ñoo fa des di malaat seen wér-gu-yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi natt juróom-ñett fukk ak euh, ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wër nañu juróom-ñeent faatu nañu. benn delloo nañ ko ci dëkk bi nga xamante ne fa la jóge woon ci li des fii ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ma nga euh, mu doonoon leeral yi tukkee ci waa Kër Docteur ña des ca lal hôpital ñu leen di faj toll nañ ci juróomi téeméer ak fukkak ak euh, juróom-ñaar euh, dañ ci na mu gën a yaatoo Covid 19 bi ca Tambacounda dugg na fa lim bu takku ci ay njaboot ber nañ leen ci jamono ji ña nga quarantaine ngir mun a saytu leen ndax am nañu coronavirus am déet waaye nag jafe-jafe yu tar la ñuy dund ca leen ber ne amuñu benn ndimbalak ak benn taxawu kenn ci ñoom jot na ko joytu ci micro Alassane Diallo. Assane gis nga de man la sama famille nekk en quarantaine man la sama nijaay euh, contaminé instant yi depuis boobu ba léegi gisuñu kenn ñëpp a nekk di daw kër gi métti na trop gisuñu kenn kenn duñu taxaw yaa une seule rek moo ñu taxaw instant yi ñu di famille la famille Sow kese kese ñoom ñooy am seen i lekk di indi ci biir kër gi te sonn nañ te famille bi na famille bi rëy na am na ay xale ay mag ci biir kër gi métti na trop trop trop trop ñu ngi dund lu métti gisuñu kenn yaa personne koo xamante ni ki ñoo taxaw famille lëmm nga def leen en quarantaine leen tëj leen joxoo leen dund joxoo leen lekk ñu naan bi joxoo leen dara dara dara dafa métti borom kër gi en personne moom mi ngi tëdd hôpital ñun daal soxla nañ dimbal ku ñu mën a dimbale lu waaye mën a am mu ñëw dimbale mu dimbale ñu sonn nañ trop franchement sonn nañ. ñeneen ñu sonn ci jamono ji mooy jaaykat ya ne ca Wuro Sogi foofee ca marché ba. déggatuñu ñaata ndax couvre-feu beek état d'urgence bi nguur gi taxal ba ba léegi ngir xeex coronavirus ba tax na loolee jot naa gàllankoor seen koom dundu ga yi tamit naka noonu foofee ca Wuro Sogi suñu naataango Amadou Issa Kane ma nga foon. aar sa bopp aar ñi la jege digle yi nañ ko jëfee fagaroo gën faju gars yi nañ may distance di takk masque yi di jëfee li waa docteur wax. jaaykat soppaliku rappeur mu ngi xew fii ci marché central bu Wuro Sogi lu ko waral daal seeni a Talla Diakhaté ak Abdourahmane Ndiaye ñu ngi leen fekk foofu ca marché bu wurusoo gi ñu déglu leen ndax ba couvre-feu bi tàmbalee ba léegi nii instant yi moom client yi ñëwatu nañ doon ñëwee ndax ku daan jënd ku daan jaay ay millions a bi yéeme na trop nag waaye di ñaan la loo xam ne balaa bu suñu borom wàcce la moom si Sénégal moom day parce que léegi oto léegi dafa a sensé client yi ci àll bi la daan jógee bu dee waa wër fekk léegi daanaka duñu génn parce que naaj dafa tàng. Hawa ak Abdoulaye Kébé nee nañu daal mbir mi tamit métti na lool ndaxte couvre-feu bi moo fa jaar vingt et une heures lañ doon wàcc waaye nag léegi dix-sept heures rek ñu lalli dem seen yoon te nag loolu baaxul ci ñoom ndaxte ay père de famille lañu ak ay jigéen yoo xamante ne daan seen doole moo leen tax a jóg te nag dundal seen i njaboot lii doxul. li ngay yor ba yaay bi encore dangay yendu fi ba ngoon te amoo loo yóbbu njaboot yi il faut nga xëy ah, maintenant góor foofu instant bi nii vingt heures ñëpp dañuy dugg instant bi ñun dix-sept heures bu bu laale dañuy waaj alors que yan heure ngeen di daan fii dañ laan fii dañ laan julee timis ah dañ laan julee fii timis ndax lii lépp bu feebar bee ko waral tey dañuy jaay tey bu subaa dañuy jaay waaye nag ñu ngi sant yàlla ndax fekkee moo waral jàpp dañuy ñaan suñu borom nga xam ne nag loo ko ñaan mu may la ah bu ne dellusee mu gën a neex loolu rek la ñaan yàlla te yàlla jëlee fi nag feebar bi ndax ñun sonn nañ lool nag. mu mel ni nag boo demee sax ci jaaykatu suukar yi ak warga rawut nag ay tàndarm ñoom itam la toog rek daal di bànq seen loxo ak seen tànk waaye nag ñaata lay jar déggatuñ ko moo taxi daal fu mu toll ni sol nañu lool te nag ñu ngi ñaax rek gouvernement bu Macky Sall mu fexe dal ba boole leen li nga xamante ne moom mooy séddale yi dund yi bu ko defee ñoom itam ñu mën ko jégleel seen i njaboot ndaxte liggéey dang moo leen tax a jóg ñëw fii ci Ourossogui ngir daan seen doole Ourossogui Amadou Issa Kane rajo télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Amadou Issa Kane bu dee nag ca diwaanu Kédougou askan wa fa yeewoo ci anam yu méttee métti la ñu doore weeru koor ren ji la ko waral mooy xuy ak kamaj ga courant ba dëkkee ci googule gox askan wa ne dina jafe lool ñu eh, mun a doxi seen soxla wala bëgg mun a yëngu ci njaay ak leneen ak leneen ndax courant ba eh, moo leen ko eh, xañ dañ ciy teewlu Soli Brahma Dabo. fu ñu toll nii ñëpp xam nañu daal Kédougou bokk nañ ci région yi gën a tàng boole ci ñekkum ndox mi ak ci courant. ngir délestage buuti bi ba tax na askan fi yow nag xamatuñu fu ñu teg seen tànk. dañuy toog 4 jours 5 duñu am courant mënatuñoo naan glace si weeru koor lañ nekk teer yi ñawatuñ kenn liggéeyatul. at ak nii Kédougou mënuñu am courant baax te loolu dëkk bu toll nii Kédougou dafa war a mën deñ nga woor nga woor ba ngoon jot ak tàngoor yi ni mu méttee nii instant ak couvre-feu bi nii amoo glace day métti trop. machine yi doyatul day tàkk une deux trois mu ne kamaj machine yëpp lakk nañ leen man barki dem sama sama. sama frigo daa lakk réew mi nag ñun ñu ngi bëgg a fàtte ñun waa Kédougou nan ñu sóoraale ci Sénégal lan bokk. jën wax conservation ndax li ngay indi mënoo ko jaay tey si bis bi mu jeex donc il faut nga conservé ko léegi nag boo koy denc glace moo ñuy dencal suñuy jën mais jën si naaj bi moom mënut a dem. li ci gën a sonn mu di ne daal les personnes du troisième âge maanaam mag yi surtout ci weer koor bi ci dikala bi doom Mendes mi yor central bi gannaaw bu muy baaluwee ak askan bi ba noppi nga xamal ne leen mbir mi nu mu demee nee na daal fu ñu toll nii indi nañ leen benn moteur bu bees te yaakaar naa ne fii ba suba lépp dina en tout. semaine bi yëpp euh, askan bi sonn nañ trop ci ñàkkum courant bi ci coupure yi ci délestage yi euh, fan yi li ko waral nag maanaam euh, tàngoor bi dafa dugg euh, yëf yi ñëpp charge yi augmenté groupe yi atatuñu ko groupe yi dañuy tàng di di déclenché loolu nag moo tax ñuy délesté euh, suñu direction ñoom tooguñu ñoom tamit bi yëf yi commencé dañoo commandé ay groupe benn bi ñëw na démb ba installé nañ ko donc ci waxtu yi di ñëw dinañ ko taal yëf yi amélioré. bu loolu weesoo nag mais des di jokk ne daal semaine bi di ñëw lii di délestage dootu fi amaat. Euh, yemuñu ci loolu euh, semaine bi dès lundi am na yeneen quatre groupes quatre groupes bees de mille de cinq cent cinquante kVA chacun ñu ñëw indi ko fii installé ko pour vraiment yëf yi mën a jeex daal euh, délestage bi nit ñi mën a ko daal. ci fàttali ëpp na juróom at waxtu bi bu jotee maanaam mars avril mai. cen dootu fi am jàmm ngir ñàkkum ndox mi ak courant bi Kédougou Solib Ramadabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Solib Ramadabo atum ren ji ne askan wi eh, soobu ci weeru koor gi yemook nag euh, coronavirus euh, ñu bari ci ñoom gis ne dina gàllankoor lu bëri ci seen doxalin rawatina naafila mbooloo gañ doon euh, gis say bu weeru koor jotee loolee amatul ñu bari jàpp ne atum rëy dina wuuteeg ñañ ko daan doxalee ak di ko dundee at yi ñu weesu ci dimbalante beeg demalante gi dañ ci teewlu reportage yu maam Khady Diéry Fall weeru kooru door ci nu ko kenn foogewul woon feebaru coronavirus ñëw indi ay coppite ci doxalinu nit ñi suñ sukkandikoo ci xale bu góor bi. metti na trop ah. parce que actuellement booy xool changé na lu bëri am na si ñoo xamante ne comme sama classe gi bu ñu dogoon ba pare dañuy dañuy génn dem entraînement am na mag yoo xamante ne bu ñu lekkoon ba pare dañuy génn doxantu lu bëri tey booy xool da ko da ko changé lu si bëri day manqué affaire yi métti na ci père de famille dañ doon def dañuy teg café ñi nga xam ne dañuy ñibbi seen kër dañ ñoom dañuy dañuy tardé heure ndogu fekk leen si yoon bi dañ leen di jox ñu ndogu tey booy xool lu si bëri loolu yëpp dafa arrêté dem ak dikk yi tagatémbe dajaloo yi ñu tere ko mbas bi lee di coronavirus daa di indi ay coppité ci yenn doxalinu nit ñi ci gis-gisu borom kër bi lee. lu soppeeku moom soppeeku na. ci hospitalité bi ci julli yi parce que julli jàkk tuyaaba ya nga cay jëlee ak julli kër bokkul. wàllu teraanga ji mooy muy muy ndogu yi yooyu ñu daan seddale mu doon weeru koor bu wuteek yi fi daan am suñ sukkandikoo ci soxna Sile. saa yi ñu nekk nii. Euh, soxla nañu xadara mënuñoo xadara bëgg nañu dégg nodd ci jumaa yi mënuñoo dégg nodd ci jumaa ji metti nañu mënuñu dem naa fi ji ku nekk daal mu ngi ci këram daal ndax feebar bi coronavirus bi fi mu nekk nii damay gaawalantu nii sa balaa une heure rek ma delluwaat fi ma jóge guddik weeru koor nit ñi buñ ndoguwaan ba pare di faral di dajaloo di waxtaan wala lu ni mel lile ak mbas mi di coronavirus ak couvre-feu yi doon na lu koy gàllankoor ñu ngi koy jaajëfal leneen ci xibaar ngir taxawu askan wi ci waxtu coronavirus eh, gi ñu ne ak i tamit fexe ba askan wi jublu ci xeex feebar bi doon na lu yitteel maire bu Rufisque jukki na ay millions yu mu jagleel askanu fa yeewoo lu demee ni dund ngir mun leen caa gunge eh, dañ ci teewlu na Najib Sagna. léegi tënkee si xeex coronavirus ay toonu ceeb ak suukar ak diwlin la dajale pour jokk ñoo xam ne ni dañ ko soxla fii si Tëngéej Gawda Korea moo doon jiitee mbir mi. parce que dañu nekk si benn dynamique dynamique bi mooy xeex pandémie bi bu loolu weesoo beneen couche bi nañu ne woon ne tey jii ñoom nañuy jàppale. tey nag li ñuy joxe fii. toll na cent cinquante sacs de riz de 25 kilos. 100 bidons d'huile de 5 litres ak trent grosses de sucre yoo xam ne moom la ñu jagleel les sportifs Youssou moom dinañu ko jàppale ci ay dund nañ ko jàppale tamit ci carburant maanaam essence lu mat 1000 litres nañ nañ ko ko jox dinañ ko jàppale tamit si ay diffuseur yoo xam ne ñoo koy installeel si biir hôpital bi teg si nag vingt sacs de cinquante kilos vingt bidons d'huile de cinq litres ak cinq grosses sucre tey jii commandé nañu quinze mille mu nekk un premier jet dinañ ko jot si diir bu gàtt buñ ko jotee it dinañ ko séddale gratuitement fii si maire bi directeur cabinet bi nag Matar Cissé moom nag lu mu wax moo di séddale produits alimentaires yooyu nag dina yomb ndaxte ñoom si transparence lañ koy def pour mën jot ñoo xam ne ni seen loxo tul kon ni nga xam ne présentement ñoom ñooy wax bilan ah ñun eggaguñu ci bilan parce que te li ñuy def nii ci budget boobu ñuy wax ci la bokk te am na ñeneen ñoo xam ne aussi dinañu sollicité ci budget boobu aussi la ñuy jëlaat pour euh, satisfaire seen besoin a précis encore. mooy lu ñuy wax handicapé yi 37 millions la c' par trent 37 millions huit association handicapé yi ñëw nañ émergé nañ ñoom xam nañ leen jox ah ñun xam nañ ñu leen jox kon yaa amul dara loo xam ne luñ ci nëpp am nañ ci mais le problème mooy 37 millions yi et c' pour les handicapés et pour les couches vulnérables joxe produit alimentaire mairie de ville nag joxe na tamit na joxe tamit ay subvention yoo xam ne nii association ñoo ko moom lu mel ni association diabétique yi te ne nag lii mooy première action bu maire bi def ndaxte comité départemental nag maire bi jox na ko loo xam ne ni dafa tokk pour mën leen jàppale pour que xeex bi mën a dëgër fii si département bu Tëngéej réussir nañu sañaan télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal euh, Najib Sagna bu dee ca diwaanu Louga kuréel ga jóg ngir suqali commune bu Léona jukki nañu itamit euh, seen dimbal euh, jëndee ko masque produit yoo xamante ne askan wa daañ ko mun a jëfandikoo ngir mun a fàggu ci Covid 19 soññaale nañu askan wa itamit ñu génn sàmmonteeg tegtal ak digle ba ci couvre-feu ak état d'urgence bi fi nguur gi taxawal dañ ci teewlu Omar Kayre càgganteeg yenn sénégalais ci jamonoy feebar bi di Covid 19 tiital na ñu bari ci réew mi rawatina association bi ñuy wax ADECOR di kuréel goo xamante ni li ko tax a jóg moo di liggéey ngir développement commune bu lew na président ba di ma Madiop Wade di woo ñooñoom yi nga xam ne ñoo dëkk ci tund woowu ñu gën a farlu ci seen bopp. ñu ngi naan reste chez vous mais egg nañ ci restez dans ta chambre. man dama tiit ndax sénégalais boo leen di xool ci mbedd mi danga naan ñii est-ce que xew. gis nga bu ñu dof loo ba mbir mi ëpp loxo état bi ñun ñëpp dañu am problème état baa ngi góor lu ne mi koy def te nag man ñi may interpellé mooy les marabu sëriñ si nga xamante ni nit ñaa ngi leen jox seen bopp naa leen jox naa leen sama bopp àdduna ak àllaaxira nañu wax nañu wax nit ñi ñu toog na nit ñi takk masque. laneen loo xamante ni président Adecor bi naqarlu na ko moo di dugg gi nga xam ne ñenn ñi ñoo ngi koy dugg ci commune bu na ci jamono ji nga xam ne transport interurbain bi dañu ko interdire ngir bañ virus bi gën a law li waral nag muy woo population bi nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi ñu jébaane képp koo xamante ni gis nañ la nga dugg ci commune bi. monsieur le maire gis naa ci nag ci dëkk yi fan yii lu fi xew yow bi nga waxee ndigal li toog leen ñun toog nañu waaye ay quelques nit a ci yeneen commune wala ci yeneen région di fi loolu nañu ko arrêté. nun nooy jël suñu bopp suñu responsabilité am na su ko état déwul nun nan ko def ndax ñu ñu sowe ADECOR ah, yamul rek di sensibilisé ngir bañ feebar bi dugg ci seen tund wi association bi ci ànd gu mu ànd ak tailleur yi nekk ci commune bu na jox na comité local de gestion bi douze mille cent masques six thermoflash ak quantité bu bari produit détergent. te avant loolu opérateur économie yi nekk yi bokk ci ADECOR nekk seen louis am na lu ñu indi woon teg ko ci loxo def pour nit ñi xam ni. lew na am na ay doom yu ñu mën a roy ñu ngi ci àll bi dañ daan seen doole waaye bàyyi nañu xel seeni dëkk kon séddale bi ki gën a jege ba ki gën a sori na ñëpp des seen wàll ñu daat koy samp nag ci atum 1996 ADECOR def ay réalisation yu bari ci commune bu lew na ba ñu ci gën a ràññee moo di post de santé bu colom nga xam ne ñoo ko tabax ci budget boo xamante ni mën nañ koo xayma ci téeméeri million ci sunu xaalis Oumar Kayre Louga Walfadjri mangoog uh, Omar Kayre ca diwaanu Louga mbokk yi bu ma dikk ak ci jeextalu xibaar yi. kaay waaye nag uh, la jiwo jeexul jógu fa ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. nu mu jàppandeegul ci euh, machines yi mbokk yi foofee la ñu fas yéene tàggatoog yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walf TV jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gontoog jàmm ak bato askan wi yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.